bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey jii mooy guddig ñaar fukkeel ak ñant ci koor gi naafila tey gu juróom benn raka la di ñetti sëlmal raka ba ne faatiha benn yoon xul wallahu ahadun ñetti yoon juróom benn raka raka ba ne faatiha benn yoon lixlaas ñetti yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa